أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu xam ngeen ne ba nu ubbee dars ci waxtaane yonent yàlla Muusa alayhi salaam boobaak léegi xaw na yàgg xaw na jël ay fan ay weer noo ngi sant sunu borom moom mi nu may tey ñuy jeexal dars Muusa di jël duruus al mustafaada min al qissa ñoo ngi tënk tey dars yi nga xam ne ñoo mujj ci yi ñu joxe woon ci dund Muusa alayhi salaam bu nu lumee fukki tomb yu jeexal dars boobu bi ci njëkk mooy annal muslim laa yambari alayhi an yushaddid ala nafsi فلقد رأينا كيف أن الله لما أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة ليأخذوا جزءا منها فيضربوا به جسد المقتول ليعرفوا من القاتل فلو أنهم ذبحوا أي بقرة لحصل المقصود ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم danañ jàng tey ne ab jullit dana jàng ci lars bi ne banu Israil keroog baleen yàlla sante nañu rey nag te ngeen xamoon lay sabab ba ku ñu rey ñu def mbooloo dem laaji seen yonent comme ni mu ware ci chaque jour nit su xamul mu laaj foofu mbokk yi ñoom lu rafet lañ def xëy nañ fekk ku dee xamuñu ku ko rey ñu dem laaji seen yonent loolu jaadu la waaye bañ demee yonent ba wax leen ne leen dem leen ngeen jël benn nag ngeen rey ko ngeen jël lenn ci nag bi ngeen dóor ko ku dee ki dina dundaat daal di wax ki ko rey boroom xam-xam yi ne ñoom banu Israil keroog suñu demoon rekk jël nag bu ñu mën a am ak fu ñu ko mën a fekk ak nuñ ko mën a amee nag rekk lañ leen wax ñu dem jël nag rey ko def liñ leen wax jël ci dara ci nag bi dóor ku faatu kon mbir mi dana doy kon la ñu bëggoon danañ ko am waaye ba ñu taralee di laaj yàlla maa hiya maa lawnuha inna albaqara tashabaha alayna di taral boroom xam-xam yi nee nañ ba ñu taralee yàlla taral seen kaw kon ab jullit laa yambagi alayhi an yusaddida ala nafsi jullit du taral ci boppam suñ la waxee mbir mi lii la rek defal loolu yemal yemal ci loolu mais di nga gis tey ci suñu jamono ay nit ñoo xam ne dañuy jéem a taral di ëppal di ëppal ba mbir mi mujj a metti ci ñoom looloo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne xuzu min al amali ma tutiquun fa inna allaha la yamallu xata tamillu jël leen ci mbir yi lu ngeen mën jël leen lu ngeen mën ndax yàlla du yokkat lu dul ngeen yokkat mbir yi kenn ku nekk ci ñun li la yàlla sant yamal foofu bul ëppal waaw yonent bi sax su yónni woon saxaaba yi def leen di wax ne innama bu istum mu yassirin yàlla def leen a yónni pour ngeen yombal yassiru wala tuassiru yombal leen bu leen jafeel inna haza diin buniya alal yusr diine ji dañ ko tabax ci yombute kon taral bu ëpp loolu ñu naan alxulu bu ëppal dañ koo tere ab jullit loolu mooy tomb bu njëkk taral day tere ab jullit ñaareel bi anna birrul walidayni yanfau saahibuhu fi dunya wal axira mbokk yi njekk am yar am teggin mokke mokk rumbux baax ci say ñaari wayjur day jëriñ ku ko def àdduna jëriñ la àllaaxira falaqad ra'aynaa gis nañ anna haadha shaab allazi kaana baaran bi walidayhi baa albaqara allati kaanu yabxasuna anha mil'u jildiha zahaban gis nañ ne xale bu góor bi nga xam ne dafa baaxoon ci ay woy juróom mokk ci ñoom rumbux déggal leen yërëm leen jàppale leen xale bu góor bii gis nañ li ko yàlla fay li ko yàlla fay mooy yàlla baax ci moom ba nag ba nga xam ne moom la banu israila soxla woon yàlla ne banu israil nañu jënde nag bi feesuwaayu der bi ba mu fees dell ak or xam ngeen banu Israël ba ñu wëree di ut nag bu ñu war a rey di wër ba ñu laajee yàlla nag bi nan la mel ci couleur yeeg melokaan bi ci nag bi lu muy liggéey nag bi ñaata at lay am ba ñu gis ko ñu wër ba gis ko lan mooy seen problème pour ñu am ko borom nag bi daf leen ne nag bi de li ma koy jaayee mooy bu ñu ko reyee ba fees ko der bi la ñuy tàllal ñu jal ko or ba mu fees ma doog ma doog loolu bu ngeen ko mënee ma jënd loolu na xéewal la gu yàlla faye xale bi ndax dafa déggaloon ndeyam ak baay kon mbokk yi ngëneelu déggal sa ndey ak sa baay xéewal gu rëy la ci yàlla tabaraka wa taala ndax yàlla teraanga rek la lay defal foo gis ku déggal ndeyam ak baayam yërëm leen di leen jàppale melul ne xale tey yii ñi nga xam ne dañoo tiital seeni ndey ak seen baay yàlla teraanga rek la lay defal zahir ak baatin waaw kon gis nañ ne xale bi déggaloon ndeyam ak baayam lan la jaaye waa banu Israil nag bi te nekkul lenn lu dul mu jaay leen der bi mu fees dell ak or mu ne lii ci àdduna dong la ko yàlla defal xale bi kon xam ngeen ne àllaaxira waxi noppi kon ñaareelu tomb bi ci li ñuy jëlee ci dund bi Moussa mooy ku déggal sa ñaari way jur yàlla teral la àdduna teral la àllaaxira ñetteel an al muslim yambagi an yarida al ilma ila allahi an yarudda al ilma ila allahi li ann allah alamu bi maqadiri al ibad walida عتب الله موسى عليه السلام لما سئل هل هناك على وجه الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله فقال لا danañ gis ne ñetteelu tomb bi lii war ab jullit mooy xam-xam mu delloo ko yàlla xam-xam buñ la ci laajee delloo ko yàlla ndax yàlla xam yàlla mën yàlla rekk am xam-xam gis nañu Muusa alayhi salaam bañ ko laajee ne ko yow yonent yàlla bi tey fii nu toll ci xeet wi ndax am na ku la ëpp xam-xam mu ne déedéet kon lu mu wane mooy boppam yàlla daal di ko yedd boole ko ak ku ko raw ku ko wan ne yow daal demoo fenn mënoo dara xamoo dara bu doon tey ci sunu jamono dañ naan yàlla da koo boole ak ku ko humilier lu waral loolu te ab yonent la mooy dafa wax ne moom moo gën a xam ñépp te li yàlla wax ci alquran mooy fawqa kullu zi ilmin alim kon ab jullit suñ ko laajee ci mbirum xam-xam na ko delloo yàlla ndax yàllaay ki xam mbiri jaam ñi Muusaa ngi nii bañ ko laajee ci mbirum xam-xam ku gën a xam tey ci dëkk bi ndax am na ku la raw mu ne déedéet yàlla boole kook benn waa joo xam ne moo ko raw kon ñetteelu dars bi ñetteelu tomb bi mooy jullit na bari lu muy wax ne yàlla rekk a xam waaw loo am xam-xam-xam xamal ne xamoo dara yàllaay ki xam kon dee ko delloo yàlla ñeenteel mooy alal xirs alal rixlati li talabil ilmi ñeenteel bi mooy jullit war na xër ci sàkku ji xam-xam di tukki dem jàngi uti xam-xam dem déglu nit ñu baax ñi nit ñi nga xam ne ñoo am xam-xam xam-xam buy jëriñi àdduna di la jëriñ alaaxira nga dem uti loolu fa laqad rahala muusa alayhi salaam li yatluba al ilma min al xudar alayhi salaam gis nañ ne muusa dem na jàngi ba ko yàlla ne am na ku la raw muusa rëy rëyluwul dafa gàddu kayam ak bigam dem jàngi kon nit lu mu am xam-xam am xam-xam am xam-xam na xam ne am na ku ko raw ba pare loo am xam-xam loo am xam-xam am na lu des qul liman yad'u bil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashya saa yi gisee nit di fëgg dëgnam naan maa xam maa xam maa xam ne ko xam nga tuuti rek li nga li nga réere moo ëpp waaw li nga réeree ëpp benn waaye da doon wax ne moom rekk am xam-xam man dong maa xam man dong man maay wax bi muy wane ne moom dafa am xam-xam mooy jàngale mooy def mooy def mooy def mooy def benn taalibeem benn taalibeem bàyyi ko ba mu toog di jàngale mu ñëw ne ko dama am laaj mu ne ko luy sa laaj mu ne ko saaku fëriñ ñaata kilo lay nekk saaku fëriñ suñ ko jàmbee ñaata kilo lay nekk mu ne ko ba ñu pare jàng bi mu paree mu daal di sol daalam dem ci boulanger bi ne ko dama am laaj de bu ma la bëgg a laaj boulanger bi ne ko lan la mu ne ko saaku mburu bi boo ko jàmbee ñaata kilo lay nekk waa ji daal koy wax mu delluwaat jàkka ja ñëw ne ana ki doon laaj mburu mi mu ne maa ngi ni mu ne ko nàngam la mu ne ko lu tax bi ma la laajee tontu woo ma mu ne ko fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun ku xamul da ngay laaj ku xam bi nga ma laajee xaw ma woon ne ko dama jàpp kon su ko defee nit na xam ne dafa war a uti xam-xam jàngi saa yoo gisee ku la raw demal nga jàng ci moom kon danañ jële waa encore ci dars bi ne Moussa li muy nekk ab yonent yonent yëpp mbokk yi dem na jàngi juróomeel mooy la budda li taalibil ilmi an yakuna mutawaadian ma cheikhi li yanaala barakata ilmihi wa li yafuuza bi xubbihi wa qurbihi dinañ jàng tey encore ne ku am xam-xam ku ne wala ndongo li nga xam ne dafa bëgg uti xam-xam su bëggee am xam-xam su demee na toroxlu na suufe suufelu ci sëriñ bi koy jàngal nit buy jàngi dafa war a am yar dafa war a am teggin ci kanamu ki koy jàngal mal asaf tey di ngay gis kuy jàngi koo xam ne jàngiwul lu dul diingat jàngiwul lu dul dem xooli kiy jàngale ndax mën na jàngale wala mënul jàngale wala jële ci moom ay sikk yu muy wane ci xam ngeen ne jamono tey am na benn mbooloo boo xam ne nekkoon nañ fi suñuy dem ci daara yi wala ci barab yi ñuy defee waxtaan wala ji jàng dañuy yóbbaale seen enregistrement wala yóbbaale seeni bic ak seeni feuille suñ demee njuumte lu sëriñ bi def moom moo leen di intéressé bal sax ñooñu dañ leen daan yónni ne leen dem leen ngeen xool seex bi ñaata njuumte la def ngeen ñëw wax ñu ko xam nga loolu bokkul ci sell gis nañ Moussa keroog ba mu demee ci xudar di jàngi xudar ne ko mënoo ànd ak man lu tax lu am bul laaj lan moo yàq diggante xudar ak Moussa mooy ñàkk déggal sa sëriñ xudar ne ko mënatoo ànd ak man waaye xool leen nag Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam keroog ba Jibril ñëwee di ko jàngal ni Jibril toogee noonu la toogee waaw ni Jibril toogee noonu la Seydina Muhammad toogee jàngeen xadiis Omar Omar nee na benn bis bay na maa nahnu julus dañoo toogoon benn waaye daal di dugg si boo xam ne ñun kenn xamu ko waa ji laa yura alayhi asaru safar kenn du gis ci moom jeexitalu tukki bi mu ñëwee waa ji nan la toogee dafa teg ñaari tànkam ci suuf toog ci ñaari cati tànkam yi daal di jël loxoom yi teg ko ci po ci poojam yi noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu jibril toogee noonu la toogee yaa muhammad ma diin maa ngi lay laaj yow yonent bi mal iman mal islaam mal ihsaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko tontu benn par benn teggin googu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wone woon nit kuy jàng nekk ab jullit teggin yooyu nga war a wone bu fekkee da ngay dem di jàngi mu ne gis nañ Moussa dem na ci xudar waaye li yàq seen diggante mooy ay laaj yu dul jeex te dañ ko ko tere mu ngoog kon soo bëggee am xam-xam da nga suufe suufeelu ak ki lay jàngal ngir nga am barke xam-xam ngir ki lay jàngal bëgg la nga jege ko wala taalibil ilmi war na ki sàkku xam-xam an yatlubal ilma lil axira waaw deel ut xam-xam pour àllaaxira waaw jàngal pour nga xam sa diine pour nga xam ëllëg àllaaxira nooy muccee loolu mooy juróomeelu tomb mooy sàkku xam-xam juróom-benneel alal muslim qad yansa baadul asiya al muhimma wa yakunu zalika nisyan bi sababi shaytan fa huwa al aduw allazi laa yuridul xayra li muslimin abadan léeg-léeg ab jullit dana fàtte yenn mbir yoo xam ne dafa am solo te mbir yooyu lu am importance la fàtte googu ngay fàtte nag na nga yëg ne seytaane moo koy def ci yow ndax seytaane noonu la ndax gis nañ Moussa dem na jàngi waaye place bañ ko waxoon ne fa ngay fekk sëriñ balay jàngal màndarga ba ñu yóbbu woon di leen wan ne fii la sëriñ bi nekk lu mu leen jural mooy ñu fàtte ko kon léeg-léeg nit dina fàtte loo màgg màgg màgg màgg léeg-léeg nga fàtte loolu moo lay wan ne am nga foo yem am nga foo yem waaw ku dul fàtte amul kenn dong moo dul fàtte mooy kan sunu borom subhanahu wa taala kon nag loolu war nañ ko cee jàng ab jullit xam ne loo am daraja am daraja am daraja léeg-léeg seytaane mën na laa fëkk fàtte loola loolu tax ngeen gis ci ñaani ñu jàng rabbana laa tu'aaxizna in nasi'na aw axta'na yàlla yàlla boo ñu jàppee suñu fàttee wala ñu juum ndax fàtte ci suñu bind la nekk juróom-ñaareel annahu qad yara al insaan asiya ajiba lakin allah azza wa jalla lahu fiha xikma jalila léeg-léeg nit dana gis ay mbir yoo xam ne mbir yu yéeme la waaye sunu borom subhanahu wa taala daf cee def ay mbiram daf cee def ay secret ci mbir yooyu ngay gis mu jaaxal la mu yéem la trop gis nañ ci Moussa lu doy waar lan ak lan la mooy rey nit gis nañ ci gaal guy daw ci géej ñu bënn ko gis nañ ci miir bu waroon daanu bu daal di koy defaraat yooyu ay mbir la yoo xam ne hikma jaliya ay mbir la yoo xam ne yu am sekkere la ci biir yenn saa yi mu nëbbu ci nit ñi waaye fekk ñi jege yàlla moom subhanahu wa taala xam na mbir yi lii lu ñuy firi comme ni mu xewee diggante Muusa ak Xudar ci rey xale bi defaraat miir bi ak mbirum gaal gi ay mbir la yoo xam ne Muusa alayhi salaam li muy am am am daraja li muy takk ndomba tànk ci yàlla mbir yooyu keroog réer na ko kon loola lay wan ne fawqa kulli zi ilmin alim ku xam ku ne am na ku la raw waaw ku fi raw nga ni man kenn raw ma ku fi mën man ku fi ëpp doole man waaw loolu mënta nekk koo gis mu am doole am na ku ko ëpp doole même da ngay gis ci yonent yàlla mu Suleymaan ba muy wax ku kuma indil seesu Balqiis kenn koo xam ne dafa amoon xam-xamu kumpa dafa ne ko man de mun naa ko indi balaa ngay jóg fii nga toog mu ne ko loolu dafa yàgg fii ma toog balaa may jóg loolu dafa yàgg keneen daan ne man ne mën naa kaa indi ah ah diggante xef ak xippi rek man mun naa ko indi allahu akbar kon nga xam ne kii du moromu kay kon loo gis ku mën rek am na ko ko dàq léeg-léeg nag nga nekk ci nit ñi ñëpp ne tekk rek nga yaakaar ne yow yow yow la dëkk du noonu nit na demee hikma juróom-ñetteel mooy ann allaha yaxfazul abna bi salahil aba yàlla dana aar doom xam ngeen lu tax yàlla aar doom ndax baayam daa baaxoon doom ji baayam baax gi mu baaxoon doon jaamu yàlla doon ragaloon yàlla doom ji eggul foofu de waaye yàlla aar na doom ji ndax baay ji loolu fan lañ ko gisee histoire Moussa Xudar Xudar dem na di defaraat miir ba miir ba mu doon defaraat lan moo nekk ci suufu miir bi kanz trésor boo xam ne xale yi ñoo ko moom xale yooyu lu tax yàlla sàmmal leen seen alal boobu ndax seen baay dafa baaxoon fa amal xulaam fa kaana abawaahu muminayni gis nga ñaar ñu baaxoon lañ ñaar ñu gëm yàlla ñaar ñi seen baax bi ñu baax jëkkër ji ak jabar ji looloo tax yàlla daal leen di sàmmal seen njaboot kon ndeke ñun war nañoo baax war na noo baax pour yàlla subhanahu wa taala sàmmal nu sunu njaboot mbokk yi faqad raayna kayfa qaama Moussa wal Xudar alayhim assalaam bi binaa'i judraan jidaar jidaari alxulaamayni alyatimayni li yaxfaza lahuma kanzahuma wa kaana saba fi zalika wa kaana abuhuma saalihan loolu dong mooy sabab bi Moussa Xudar taxaw nañ di tabaxaat miir bii nga xam ne ñaari xale yi ñoo ko moom ñaari xale yi nga xam ne ay jirim lañ woon seen trésor moo nekk ci suuf seen ndàmba or bu leen seeni wayjur dencaloon foofu dara waralu ko lu dul wa kaana abuhuma saalin seen baay moo baaxoon wa kaana abuhuma saalihan ñoom ñaari xale yi seen baay ku baax la woon moo tax yàlla sàmm ñaari xale yi sàmmal leen seen alal kon loolu luñ ciy dégg mooy nun war nanoo góorgóorlu pour baax pour yàlla sàmmal ñu sunu njaboot waaye yàlla sàmmal ñu sunu alalu njaboot sunu ginnaaw juróom-ñeenteel mooy anna kullu man rafada an yatamassala li amrillahi fa inna allaha azza wa jal yuaqibuhu fi dunya wal axira képp koo xam ne danga lànk ne doo def li yàlla wax santaane yàlla yi doo ko doo ko doo ko def tere yàlla yi doo ko bàyyi yàlla dina la mbugal àdduna mbugal la alaaxira loolu bu yemoo mu leer ci ñun ñëpp góor jigéen mag ndaw ku xam ku xamul ku am ku amul ñun ñëpp nanu leer ne yàlla li mu santaane ku ko deful ku ci taxawul yàlla dina la mbugal àdduna dina la mbugal alaxira wa laqad ra'ayna kayfa anna bani israil lamma rafadu an yadxulu l arda almuqaddasa liyutahiruha min danasi haulai aljabbarin allazina ihtalluha kataba allahu alayhim attih arbaina sana yatimuna fi l ard la mu ngoog gis nan banu israil ba ñu lànkee ne duñu dugg dëkk bii di dëkk bu sell bii di Palestine baytul maqdis pour ñu laabal ko pour ñu xeex ak band yi fa nekkoon pour génne leen fa pour laabal dëkk bi band yooyu nga xam ne ñoom ñoo occupé woon dëkk ba di fa def lu leen neex yàlla ne banu israil dem leen fa ngeen xeex ak ñoom ngeen génne leen waa banu israil ne ñoom duñu dem ndax ay ponka la fa nekk ndax ragal yàlla daal di teg ci kaw banu israil ñu gëlëm ñeen fukki at ñuy wër ci kaw suuf si xamuñu baytul maqdis mu nekk loolu sax moo tax boroom xam-xam yi di wax ne loolu indil na Israël Isra ñu tasaaroo ci àdduna bi xamatuñu gis nga yàlla indiwaat Hitler seen Hitler seen kaw mu leen doon rey xam ngeen ni Israël fii nu nekk tey dañ leen fa dajalewaat Angleterre Amérique France ñoo leen dugal ci ay avion ak ay bateau delloowaat leen foofu ñoo leen dajalewaat dajalewaat ñu leen fortaatu ci dëkk bi benn benn ñaar ñaar ñett ñett ñett dajale leen ba ñu mat ñu delloo leen nii seen ñii nii seen imaam yi ñi fa nekk tey seen imaam noonu lañ leen fa dajale waat te loolu yàggul dara loolu yàggul dara mbokk yi mu ne ñu gëlëm yatihuuna fil ard ñu gëlëm xamatuñu fu ñu jëm waaw xamuñu ila ayna yazhabuun wala kayfa yaxrujuuna min ati xamuñu fu ñu jëm xamuñu nu ñuy def ba génn ci ngëlëm tànge gi kon jullit ne yëg ne bu ko yàlla santee mu lànk yàlla dina ko sonal di nga sonn àdduna sonn àllaaxira soo buggee mucc yow jullit góor nga wala jigéen mag nga wala ndaw nga li la yàlla sant nekk ci guddeeg bëccëg waaye boo lànkee yàlla dina la sonal àdduna sonal la àllaaxira fukkeelu tomb bi te ci la ñuy jeexal inna allaha yudaafiu an illazina amanu yàlla mooy aar way gëm yàlla yi ñi gëm yàlla yi yàlla moo leen di aar walaqad raayna kayfa saxara allahu aza wajal alxajra liyaaxuza siyaaba musa alayhi salaam liyamurra amaama bani israil fa yarawna jasadahu saliman laysa fihi uyub wa yantahi bizalika kasbahum faqad kaanuu yazcamuna anna musa alayhi salaam bihi uyub fi jasadihi gis nañ ne ku gëm yàlla yàlla lay aar inna allaha yudaafiu an illazina amanu yàllaay aar way gëm yàlla yi yàlla waxoon na yonent yàlla muhammad wallahu yaasimuka min annas wallahi ku gëm yàlla yàlla aar la wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la gis nañ muusa alayhi salaam bi ko waa dëkku baa tuumaal di teg ci deram lu bon di ko wax loo xamante ne naan yaram bi nangama ci nekk dafa lii dafa lee yàllaa ko aaral boppam yàllaa yónni benn xeer xeer bi ñëw sàcc yére yérant yàlla Muusa daw ak moom ba romb waa banu Israil Muusa yegg si doon jël si yére bi ñu xool yaram bi gisuñu ci ayib yooyu ñu doon wax noonu yàlla laabale Muusa ci làmmiñu gaa yooyu noonu yàlla aare Muusa fi musibaay gaa yooyu noonu la yàlla di aare képp ku gëm yàlla nekk jullit mbokk yi olof yi dañuy faral di wax ne lépp loo xam ne dafa am walla dafa tëgg loolu boroom xam-xam yi di wax di kulli bidaaya nihaaya tàmbali boo gis am na fu muy jeexee waaw lu xumb loo gis dana tas borom borom xam-xam yi nee nañ ku nuyoo ku ne dina tàggoo wa mahma asal insaan wala budda lahu min tilka lahzat lu doomu aadama gudd gudd fan il faut jamono yooyu day teew ci dundu nit ñoo tàmbali woon ak yéen xissa Muusa alayhi salaam tey la ko yàlla jeexal semaine yi di ñëwaat ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ñoo ngi jël qissatu yuusa ibnu nun alayhi salaam aqulu ma tasmaun assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu su fekkee am na laaj waaleykum salaam wa rahmatullah
maanaam